buntu woo xam ne daf lay jàngal melokaanu julli yi ñu farataal ak sax yudut yiñ farataal yooye minan nawaafili wa sunan yi waxoon nañ nawaafil yi mooy yi nga xam ne da nga koo coobareew rek sunan yi mooy yi nga xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëf na ko lu mel ni jullit korite lu mel ni tabaski lu mel ni jullit baaw naan lu mel ni jullit muurug jant wala muurug weer lu mel ni shafa witre lu mel ni witre tey ñu war a tàmbalee Euh, waxoon na ne bu fekkee ne imaam mooy julli bu boobaa dafay sëlmal benn sëlmal muy assalaamu aleykum am nañu wax ne bu ci yokkee wa rahmatullahi wa ba tey laa baas euh, bu dee maamum la dafay sëlman ci ndeyjooram delloo imaam mu ñaar bu fekkee am na ku nekk ci càmmooñam ki ne ci càmmooñam moo xam julleem pare na wala julleem parewul day sëlmal ci moom am na ñu ne bu fekkee ne masbuuq la maanaam ki ne ci càmmooñam dañ koo raw bu boobaa du sëlmal ci moom waaye li gën a dëgër mooy comme am na ku ne ci càmmooñam rek moo xam sëlmal na wala ba léegi ma ngay continuer di julli boobaa day day sëlmal ci moom léegi nag mu ne bu fekkee kenn nekkul ci càmmooñam du ko sëlmal léegi mu ne waye jaalu dana def moom mi nga xam ne mooy taaya yëdey yi ñaari loxoom fii tashahudi yi ci jamono bi muy taaya mooy dana ko def mooy dana ko teg alaa ala faxidayhi ci kaw ñaari luppam wala sax ñaari doojoor ñaari lupp mooy bu ko tegee fii baax na wala ñaari doojoor bu mu ko ci mën a teg baax mm-hmm. waaw moo tax fii ala faxidayhi la indi waaye même ci sharab bi xol daf lay wane aw ala rukubate kon tek fi wala tek fii ben euh wa yaqbidu mu daldi di moy mu bank wa yaqbidu mu daldi di moy mu bank fas asabi yadihi baromi loxom al yumna loxo bay ndeyjoor mooy loxoom ndeyjoor ba mu bank baram yi baram yi nak yenn la ci nam moy li ñuy al khinsa moy bi bu ndaw bi gën ndaw al binsar mooy bi ci topp al wusta mooy bu digg bi ñett yooyu mu banque leen loolu la ci nam mooy wa yaqbidu mu banque mooy mu fas asaabi'a yadihi baaroo mi loxoom al yumna bu ndeyjoor ba mooy al xinsar ak binsar ak wusta mu def leen ci biir tenqam yi nii waaw dugal lem leen ba ci biir tenq yi wa yabsutu mu tàllal asababata baaraamu ŋàññeekaay ba baaraamu saagaakaay ba sabba mooy firi saaga sabba ya sub asababa moy baram bi ngay joxeñee nit ki diko ko wala diko ko ŋañ borom ne asababa te ngagne kay ba te lolou luñ sopp la mu dal di koy talal yushiru dana junji biha ca mom wa qat nasaba wa qat nasaba ta fek mbir momu samp na xarfaha wet ga xarf mooy chatla. wet mooy cet la wet gi li di moy harf harfaha chat la moy wet ga ilaa wajihi mu jëm ci xar kanamam kon bu mu ko tàllal nii ci biiram wala mu def nii ci bitti waaye wet gi nii lay tàllal mu jëmale ko ci xar kanamam direct euh, léegi nag waxtu li fa wuute nañ tax fii taxrikiha euh, ci yëngat gi muy yëngal baaraamu ŋàññeekaay am na ñu ne da koy yëngal am ñoo xam ne nañ du ko yëngal kon ñaar yooyu yëpp rot na am ñoo xam dañ naan da koy def direct nii rek maanaam muy seede kenn yàlla gi noonu nga bañ ko yëngal léegi am na ñu ne ne da nga koo war a yëngal moom lay wax ne waxtu li fa wuute na fii tahrifiya ci yëngal gi koy yëngal fa qiila am na ñu ne yaataqidu day fas bi isharati ci junji bi biha ca moom mooy baaraamu ŋàññee kaay ba anna allaha ne yàlla ilahun buur la al ilah mooy al maabud bokkut ak allah allah mooy turu yàlla al ilah nag boo jëloon ab bant fii sax ko di ko jaam mën nañ ko tuddee ilah waaw moo wax ne maanaam yàlla al ilah fi sama al ilah fi ard mooy yàlla ci kaw asaman mooy ki ñuy jaamu ci kaw asamaan mooy ki ñuy jaamu tam ci kaw suuf ilahan wahid naam kon ilahun mooy ki ñuy jaamu te jaamu ga nekk dëgg ñàkk jaamu nekk neen wala jaamu ga di jëriñ ñàkk jaamu ga di lor waaxidun kenn la mooy ilaahun yàlla la waaxidun kay kenn kon loolu nga ciy fas mooy kenn gi nga def nii maanaam nga def baaraam sànnekaay bi noonu loolu nga fas ne yàlla kese mooy kenn waaye wayeta awwalu dana dana firi mooy dana dana mooy firi man ka nga xam ne yu xarrikuha dafay yëngal baaraam sànnekaay ba annaha ne moom maqamaatun am na ñu ko def mooy bërëbu dàqeekaay la li cheytaani ñeel cheytaani maanaam yëngal googu ko yëngal day dàq cheytaan am na ñu def muqmiatun bu boobaa mutridatun mooy day dàq mu nekk ismu faal maanaam boobaa baaraam sànnikaay bi mooy dàq seytaan mm-hmm. daf koy dàq yëngal googu koy yëngal waaye am na yeneen i njëriñ yu ciy wax ne yëngal gi ngay yëngal baaraam bi mm-hmm. daf lay dimbali ba yow sa xel lay nekk ci julli mm-hmm. doo fàtte te loolu léeg-léeg nit mën na ko tànte def expérience bi xool jamono bi nga xam ne dafa tàllal nii rek ak jamono bi muy yëngal nii loolu yëngal boobu mu ko yëngal dina ko bàyyiloo xel ne moom mu ngi ci biir julli gi amaat mm-hmm. mën na ko fàttali yu bare bari daal sax mu ne maq ma ak bolde la waaw waaw bolde bolde booy dóor seytaan bolde waaw mu lay muy lay def sa la maq ma atun bolde la mm-hmm. wala muqime atun mm-hmm. maanaam bolde la mooy bi nga xam ne mooy dàqe waaw li seytaan nga xam ne day dàq seytaan euh, kon loolu la ki ki koy yëngal moom loolu la ci fas waaw kon yëngal googu nga koy yëngal mën na laa dimbali ba doo juum mm-hmm. mu ne wa ahsibu léegi nag moom bi mu waxee li nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi wax mm-hmm. mooy yëngal googu lan lañ ci jublu mm-hmm. mu ne nag moom ni mu ko gisee wa ahsibu maa ngi fas man maa ngi jàpp tawila dalika firi ne an yazkura mooy mu fàttaliku bi dalika ci yëngal googu mu koy yëngal min amri salaati ci biir ci mbiri julli maa la nga xam ne yam na woo daf koy tere incha allahu nem som na yàlla ali safi walis jamaj fiihaa ci biir julli mu ne nag man li ma jàpp mooy ni ma koy fire yëngal googu mooy ne nit kiy julli bu koy yëngal day fàttali ku ne moom mu ngi ci biir julli gi ba lépp loo xam ne dafa koy tere ba ba du juum maanaam mu ko cay dimbali incha allahu ndem soob na suñu borom subhanahu wa taala mm-hmm. waaw euh, mu ne wa shughli ak soxla woo anaa walis julli maanaam yëngal googu mu koy yëngal mhm. dana ko dimbali ba du soxla woo leneen mhm. bàyyi julli ga moo tax mu ne euh, ani sahwi walis jamaj fiyaa ci biir julli wa shughli ak soxla woo anaa walis julli xam nga léeg-léeg nit dem ba du concentré wu maanaam li ñuy tuddee toroxlu du ci am dara mhm. ndaxte mu ngi xalaat leneen waaye nag heure booy yëngal rek danga nga ko ne yaa ngi ci biir julli gi mu ne wa yabsutu mu tàllal euh, yaddawoo loxoom al yusra bu càmmooñ ba ala faxidihi ci kaw luppam al aysari bu maanaam way yamut way yabsutu mu tàllal yeddawu loxoom al yusra bu càmmoñ ba ala faxidihi ci luppam al aysari bu càmmoñ ba kon bu jëlee loxo ndeyjoor bi teg ci lupp ndeyjoor bi banque ñetti baaraam yi tàllal baaraamu ŋàññeekaay bi ak baaraamu ndey bi dana wax baaraamu ndey bi nu mu koy def ba pare tànk loxo càmmoñ bi fekk boobu mu ngi tegu ci kaw lupp càmmoñ bi moom tamit wala ci kaw bëtoom yi ba tey loolu luñ sopp la waaye walaa yuharrikuha du ko yëngal moom loxo càmmoñ loxo càmmoñ moom bokku ci bu ko yëngal na ko teg nii rek waaw bëgguñ nga koy yëngal dañuy wax sax ne doonte boo demoon ba sa loxo bii nii dàgg sax bii moom kenn santu la koy yëngal bii ni mu mën a mel rek noonu nga koy defee waaye bii boobaa duut day jël place am waaw moom lay wax naan walaa yuharrikuha du ko yëngal walaa yushiru du junj bihaa ca baaraamu ŋàññeekaayu loxo càmmoñ waaw lu tax mu ne ndaxte rotut dara luy tegtale jëlee ci yonentam bi sallallahu alayhi wala ci borom xam-xam yi ne loxo càmmoñ boobu war nga cee def dara hmm. waaw te ñu la sant rek mooy nga roy li nga xam ne moo rot jógee ci yonentam bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa yustahabu sopp nañ a zikru zikar bi istri salawaati ci ginnaaw julli ya mooy julli yuñ farataal ya julli yuñ farataal ya xayri faslin yusabbihu maanaam li ñuy wax foofu mooy boo jullee ba pare avant ngay naafila na nga def azkar sopp nañ nga def ay njëkk ngay naafila am na ñoo xam ne mën nañu jullee ba pare rek commencé naafila loolu nag la tere mooy boo jullee ba pare nag na njëkkee def azkar yi ba pare nag booy teg naafila door ca teg naafila waaw bi isri salawaati ci ginnaaw julli yi yooyu bokk na ca yi nga xam ne rot na ci sunna mooy yu day sabbal allah yàlla salaasan ñett wa salaasin ak fanweer wa yahmadu mu sant allah yàlla salaasan ñett wa salaasin ak fanweer wa yukabbiru mu kabbar allah yàlla salaasan ñett wa salaasin ak fanweer wa yaxtimu mu tëjee almiata téeméer ba bi laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir ñaan yooyu bokk na ca allahumma la maania lima aatayta wala muti lima manata wala yanfau da ljaddi minka aljadd bokk na ci rot ci sunna bokk na ci astafirullah bokk na ci allah boo sëlmalee nga wax astagfiru ana allahumma inna as'aluka bi annaka sa bokku ci bokku ci ñaané allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ay dégg waaw ñaan yu bëree bëri yoo xam ne rod na ginnaaw boo jullee ba pare nga daal di koy jàng dañuy wax ne azkar boobu rot muy sala nga wax subhanallah fanweeri yoon ak ñett alhamdulilah allah akbar bu ci nekk fanweeri yoon ak ñett daa am ñoo xam ne dañoo toogoon ak yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam دون كو واخ نكو ذهب موي صحابي حديث بوب ردنا موي ياخنا ابو ذر الغفاري موكو دون موكو موكو سولو ني بان توغي اك صحابي اك يونت النبي صلى الله عليه وسلم نان كو ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم مو نكو بروم علال يدي نيوم يوبو نين تياب ييب نخت نيوم داني جولي كوم نين ني جولي دي وور كوم نين ني وور تا ام نان علال جيني مانا سارخه ام نان علال جيني مانا ген ازكا ام نان علال جيني مانا ديمبالي اي جاميام léegi yonente bi ne leen kaay leen ma jox leen hmm. loo xam ne ñoom duñ leen ëppale hmm. mu ne leen bu ngeen jullee te a pare wax leen bii fanweeri yoon bii fa ñett fanweeri yoon ak ñett fanweeri yoon ak ñett bu ci nekk ci alhamdulilah subhanallah ak eh, allahu akbar hmm. ngeen tëjee ko téeméer loolu bu ngeen ko defee ñoom duñ leen ëppale yow ba ñu demee xibaar boobu tasaaro ñooñu saxaaba yi comme lu baax lañ bëggoon ñoom tamit ñu topp leen ca loola ñi ñëw wax yonente bi ne ko ah ñii kat ñoom tamit jot nañ ci mbir bi yonente bi ne leen ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لول نك موم دو سما مبير بوب لول موم مبير يالال واه ام لا حديث بيرو وخنا ذهب اهل الدسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم واه اه من يختم مني و واو مني واخنا لول مو في دكو في واو كاي ويختم موتل المئات التمر بلا اله الا الله تي ني امول بن بور بو ني ورا جامو تا جامو غدي دغ إلا الله كرول يال وحده ممدونا لا شريك أمول بن قيت بوكالي لو دي ولا لا شريك ييوول نيكوي بوكالي أمول كتولو موم آه، ييوول نيكوي بوكالي دارا واي الشرك دي فيري مانام التسوية يمو مانام لي يالا دي وانا لا نغير له ولا شبيه له ولا مثيل له لول موي لا شريك امول كو تولوك يال ليك نك نيت مون نيو يور بن ملوكان بن صفه بو خامني تور رك لا بوكل دي ني تودي الاشتراك في الاسماء لا يوجب الاشتراك في الاشتراك في المسميات مانام مون نغا واخني نيت داي دوند دا نيو ني يال داي دوند واي دوندوك نيت اك دوندوك يالا مونو واخني نيوم نيار دانيو بوك تور رك لاج بوكل واي دوندوك نيت دوندوكو دويا دي لا ام فوم تامبالي ام فوم يم دوندوك يالا نك موم لا بدايه له ولا نهايه هو الاول والاخر والظاهر والباطن kon laa sharika aw déet xeetu bokkaale lawoo di ko ñeel hmm. lawoo ñeel na ko almulku nguur maanaam lawoo moom dong la ñeel almulku nguur dëgg-dëgg nguur hmm. woo lawoo ñeel ko moom dong la ñeel alhamdu cant hmm. wa huwa moom yàlla ala kulli shay'in ci lépp lëf qadirun aji am kattan ca lool yàlla am na kattan ci lépp waaye nag foofu dafa am lu ñu doon tuddee waxoon nañ ko bi ñuy jàng ci ci buntu bu njëkk ba li tuddee al al al al al qudratu shamila ak al machiatu la mm. maanaam yàlla mun na lépp mm. waaye am na loo xam ne yàlla mun na ko waaye machi am mm. mooy coobareem jaaru ci xam nga léeg-léeg bi ñu demee mooy ba yéeféer yi doon wax naan euh, bu ñu dellu siwaatoon ci àdduna danañ def nang di mébét loolu yàlla xam nga du leen dellu siwaat ci àdduna waaye xam nañ ñoom même bu ñu ñëwoon ci àdduna nan la ñuy doxalee looloo tax ñu ne yàlla mën na leen si ci àdduna waaye delloosi wut leen ci lu tax machi am jaaru ca mm-hmm. comme ni nga xamante ni yàlla tey mënoon na yónniwaat ak mu ñëw di wootewaat risaala mm-hmm. waa kàttanu yàlla mën na loolu mm-hmm. ab jullit ñi mu tawee di loolu mm-hmm. waaye nag loolu coobare yàlla daw ci loolu moo wuutale mbir yi moo tax léeg-léeg nga dégg Kuraan la yàlla mën na lépp waaye ndax machi am jaar na ca machi am jaaru ca wax na ko ba pare te du ko soppi bokk lay la dara déedéet kon moom lépp lëf la mën wa yustahabu def na sopp bi isri salaati ci gën bi isri salaati sobhi ci gannaaw jullik suba ak tamaadi continuer mooy wëy ci zikri ci zikkar wala istixfaar yi ak jéggalu borom bi wa tasbih ak di ko sa di ko sellal ak tasbih mooy sellal yàlla ci lépp luy bokkaale ak manqué manqué wa duaa yi ak ñaan ila tuluui shamsi jëm ba yëkkati ko jant bi mooy ba fekku jant bi kon jullik suba la doon jàngal noonu melokaan beeg ni ñu koy defeek yooyu yëpp mu ne nag bu fekkee jullik suba la moom boo paree bëgg nañ nga continuer def say azkar def ay istixfaar def ay tasbihaat ak ñaan lépp loo mën a ñaan ci mbaax mu ne jëm ba fenku jant bi aw qurba tuluuiha wala jege sax fenk la même boo mënta dem ba jant bi fenk waaye au moins mu jege ko waaye walay sa nekkul nag bi bin du lu war loolu dañ ko sopp mu ne wayar kaw dana rukon dana julli rakaatayil fajri ñaari rakaay fajar qabla salati subhi njëkki jullik suba dana julli ñaari rakaay fajar qabla salaati subhi njëkk jullik suba loolu moom li ñuy tuddee raxiba la maanaam dañ koo xemem mooy nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko ba pare teg ci nag wane ne loolu ab yool wu réeréer da tegu loolu mooy raxiba nga xam ne dañ la koo xemem loo dañ la ci bëggloo comme nit tey boo ko doon jox dara ne ko boo defee nangam danaa la jox nangam kon xemem loo nga ko mu jëf-jëf jooju mhm. euh, xam nga lii di teel a jóg donc xam nga dañ ci ay xéewal yu bëri yu ci nekk ak ñàkk a nelawaat gannaaw boo jullee julli fajar li ci nekk ci ay xéewal ak wërsëg yaatu wërsëg moo tax dañuy wax ne maanaam te naajee jóg dafay dafay xañe wërsëg moo tax mu ne mu daal di wax mu ne wayar kaw dana julli rakaatayil fajar ñaari rakaay fajar euh, ñaari rakaay fajar qabla salaati subhi njëkk jullik suba hmm. waaw qabla salaati subhi njëkk jullik suba baadal fajari gannaaw xaruk fajar nag hmm. maanaam bu ba fajar xar la waaye mënoo toog di guddi nga daal di koy julli euh, dana jàng fi kulli rakaatin ci bépp saar yaqarawu dana jàng fi kulli rakaatin ci bépp saar bi ummi quraani ci bépp raka kon afon fi kulli rakaatin ci bépp raka ci ñaar rakkaay fajar yooyu noonu bi ummi quraani ci ndey fatiha bi ummi quraani ci ndey alquran kon ci ndey alquran te mooy fatiha yusirruha dana leen yelu ci luñ sopp euh, yusurruha dana ko yaru bu jàngee boobu ba pare mu daal di jàng euh, eh, yusurruha da leen yaru rek la wax maanaam ñaar rakkaay fajari la bëgg wax ne yusurruha mm-hmm. da nga leen yaru léegi nag foofu mën nga faa jàng lu mm-hmm. am na ñoo xam dañuy wax ne mën nga faa jàng alam nashrah mën nga faa jàng di alam mm-hmm. tara mën nga faa jàng lii di alam nga xamante ne mooy alam tara léegi nag foofu am na ñu fay wax ne euh, am na ñu ko essayé wane ne day jàng gi ngay jàng alam nasrah ci ñaaraakaay fajar yi ak alam tara loolu day jëriñ li daf il makaarih daf lay défendral ay ay ñaawteef wane ne am nañu wax ne loolu euh, essayé nañ ko mu dox donte loolu rotut nag di wane ne dañ caa war a ñaari dañ caa war a jàng ñaar rakka yooyu rotut ci sunna ala kulli am na ay borom xam-xam ko saxal mu daal di cee teg mu ne wal qiraatu léegi ñaari rakka suba yi wax na la moom la nga cey jàng ndey faatiha rek nga fay jàng nak dang koy yalu waye amna yenen ñuy wax ne man nga ci teg ay yenen sa bo ci tege tamit wañul dara mu ne wala qiraatu jàng nak legi pare na ci suba wax na la tamit tuti ci ñaar rakkaay fajar yi lu ko jitu wal qiraatu jàng fi zuhri ci tisbaar bi al qiraati kem jàng ya la fi subhi ci suba min at tiwaal tuké ci lañ doon tuddé tiwal al mufassal moy ci yu gudd ya dama nga dalé ci suratul hujurat ba ci an nazi'at nazi'at ci la bokk ak al mooy la ko dalee ci abasa ba ci ad duha hmm. yu gàtt yi mooy xisaar mooy li ko dalee ci duha ba annaas moo tax mu ne jàngi tisbaar yi mook jàngi suba yi daanaka ñoo tolloo lañ bëgg mooy nga jàng ko ci saar yu kawe yi aw duna zalika wala lu yées ak tiwaal maanaam mën naa suufee tamit xalilan lu new wala aw duna zalika wala lu yées jàngi suba ya bokk mu gën a gàtt jàngi suba yi hmm. xalilan tuuti rek hmm. waaye yooyu yëpp luñ sopp la fu la neex ci alquran nga fa jàngee bu la neex mu ne walaa yajharu du biral fiha ci jullit tisbar bi shay in ci dara min al ci ca jàng ya wa yaqra'u dana jàng nag fil ula ci raka bu njëkk ba wa saniyati ak bu ñaarel ba fi kulli rakaatin ci bépp raka fi bi ummil alquran ci fatiha wa suratin aksar sirran ci yalu ci suuf wa fil uxrayatayni wa fil axiratayni wa fil axiratayni afan وفي الاخيرتين تي نيار ركع يمجي نك بام القران تي فاتحه موي تي ندي القران وحده موم دون سرا تي يلو ويتشهدوا مودال دي تايا في الجلسه الاولى تي توغاي بو نك با الى قوله جيم با تي وخم جا واشهد ان لا ان محمدا عبده ورسوله موي داغي تايا كوم نينكو وخ التحيات با تي واشهد ان محمدا عبده ورسوله تي تايا بو نك با فوف ثم يقوم توك مو جوك fala yukabbiru bu mu kabbaar nag hatta yastawi ba mu yemoo qaa'iman mbir moom muy aji taxaw hakada comme noonu yafaalu lay def al imaamu imaam bi wa rajulu ak waay waxdahu nga xam ne moom dong mooy julli am foofu daf ciy feeñ léeg-léeg sax dégg nit ki dégg feq mooy léeg-léeg nit ñi bu ñuy julli imaam bi bu ñëwee ba taaya ba pare dafa war a jóg ci deuxième bi ba taxaw jodd dam leen ko taxaw na mu door a kabaar yoo xam ne ñoo xam ne tey bu imaam bi di jóg rek ñoom jógaale ne te foofu danga war a xaar ba imam bi jóg ci deuxième rakaat ba kabar yow nga door a jóg taxaw imam bi tamit warul kabar lu dul ne jóg na taxaw ba pare door a dee yeneen yi nag day àndaale kabar bi jógaat hmm. tax fii mu ne falaa mu kabar hmm. euh, gisoo foofu sax am na ñuy wax ne falaa yaqumul mamuumu illa baada an yukabbira al imam hmm. mamuum bi bu mu jóg lu dul ne bi dafa kabar ba pare te imam dañ koo sant moom mu taxaw ba pare door a kabar loolu am solo moo tax mu ne falaa yu kabbiru bu mu kabbaar xataa yastawiya ba ta mu yemoo qaayiman mbir mu aji taxaw hakada comme noonu yafaalu lay def al imaamu imaam bi wa rajulu ak waay waxdahu moom dong wa ama al maamumu naal maamum bi nag moom fa baada an yukabbira gannaaw bu mu kabbaaree al imaamu imaam yaquumu lay jóg al maamumu maamum bi naam aydan ba tey fa ida stawa bu yemoowee qaayiman di aji taxaw kabbara na kabbaar wa yafaalu dana def fi baqiyati salaati ci li des ci julli gi من صفة الركوع كما كان الركوع والسجود أك سجود بي والجلوس أك توغاي بي نحو ما كم نغا خمنا تقدم جيتنا ذكره أك تدم في الصبح في جوليك سبا جولي بن لا ملا كان يملا وكون في جوليك سبا تي توغاي با تي نغاي ركوع أك تي يوي نون يوي بن لا كون جورم تي جارا اه لغي لم لا وخو رك موي ما عموم بي تاميت بلا موي كبار موم تاميت نقار با جوك تاخاو با باري مو دورا كبار بو ديمي با يمو دورا كبار لغي نغ لي ديس تي جوليك ييب ni la jàngale woon hmm. ci jullit suba kon jërul muy jaaraat ci jullit tisbaar pour bañ a waxtu hmm. mu ne waye tanafalu dana naafila nag baadaha gannaaw jullit tisbaar hmm. sopp nañ mu daal di fay naafila sopp nañ mu daal di fay naafila bu mu jullee tisbaar ba pare ci ñaata rakka bi arbaay rakkaatin ci ñeenti rakka foofu dugut ginnaaw gi rek waaye sopp nañ ñeenti rakka xablaha wa baadaha njëkk muy julli tisbaar loolu la ñuy tuddee arrawatib waaw arrawatib lu am am solo sopp nañ mu nafilé fa da loolu nag cofeel maanaam sopp la go xamné mu akkat la dañ ko fédélé dafa dëgër mu def ko ñeenti raka ñëk tisbar ak tisbar ndax té rod na ci hadith من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد حرمه الله على النار ني كيب كو خامني xam ne taqoo na ñeenti raka avant tisbaar ak ñeenti raka après tisbaar yàlla dana xaraamal ci moom safara يسلم دنا سلم من كل ركعتين كي بيت توكي نيار ركع يو نيك ويستحب صبنا لو نيال كو مثل ذلك كم نون مو واخي مو نينت ركع قبل صلاه العصر نيك جوليك تاكوسان فوف موم نيك جوليك تاكوسان لا نخت غيناو تاكوسان دا نيو سيب كو فاي كو فاي نافله كون لولو تاب مو ليرال فوف نيك قبل صلاه العصر ا أه، Hmm, wa yafaalu dana def fil asri ci tàkkusaan kama wasaf naa comme ni ñu melalee fi zori ci tusubaar sawa an mbir moom ñi way yemo lam la waxoon ci tisbaar tisbaar rek moom ngay defaat ci tàkkusaan kon jërul mu ciy jaaral hmm. illa annahu lulul naka moom nag yaqarawu dana jàng fi rakaatay ni ci ñaari rakaay tàkkusaan al uula yee ni ñaari njëkk ya maa umil qur'aani ànd ak fatiha muy ndey alquran bil qisaari ci yu gàtt ya qisaar mooy la ko dalee wax duha ba ci naas bu dee dañoo bëgg mu gàtt Mm-hmm. mooy gën a gàtt kon bil xisaar mm-hmm. mina suwari tukkee ca saar ya mitlu wadduha lu mel ni wadduha ak inna anzalnaha ak inna anzalnaha wa nahwihima ak yu mel ni ñoom ñaar mm-hmm. wa amal maghribu ndaal timis nag fa yajharu dana biral bil qiraati ca jàng ya fi rakaatayni ci ñaari raka al uula yee ni yeey way njëkk min ha tukkee ci timis min ha tukkee julik timis wa yaqrawu dana jàng fi kulli rakaatin min huma tukkee ci ñaari raka yu njëkk ya بأم القرآن كفاتحة وسورة الأكسار من السوار من السور تكيت سار القصار يوي قط بتي كم نقول خلو تشاكو سام وفي الثالثة دي ركعة من يتل بنك بأم القرآن كفاتحة فقط ممدون ويتشهد متايا ويسلم مسلما ويستحب صبنا أن يتنفل منافلة بعدها تجناو تمس بركعتين تنيار ركعة صبنا منافلة جناو تمس تي أه ñaari raka gannaaw bu mu defee ay azkaaram nag ba pare waaw xadis yi muy indi fii nag gëstuñ ak wéram wala ak ñàkk wéram moo tax yéeg dañ koy tudd rek tegtalewul ne wér na parce que balaa ñuy wax ne wér na wala wérul donte indi na ko ci téere bi te léeg dana indi ay xadis yoo xam ne tombeek xadis yooyu am daaf bu ci nekk rot na ci xadis comme ni mu ko indee nii mu ne man salla baada al maghribi waaye leeral nañ ne xadis yi ñuy wax nii seede wuñ ak wéram dañ koy indi rek comme borom téere bi indi na ko léegi nag li ci des moom après gëstu la mu ne yonentam bi ne man salla baada al maghribi rakaatayni katabnaahu fi alliyin ku julli ñaari rakaa gannaaw timis danañ ko bind fi alliyin mu nekk ca alliyin waaw am na ñoo xam ne alliyin dama xam ne dañ cee wut ne ci kaw asamaan la nekk ñi fay jëf ñi fay denc jëfi asaalixuuna yeeg nit ñu baax am na ñu ne mooy aljanna ak aljanna mu ne wama zaada lu dolleeku wama zaada lu dolleeku foofu moom xayrun mbaax la ba tey boo defee loo ñaar rakkaa tamit xayrun aw yiw la rek wafaalul xayra laallakum tuflixuun comme ni ko yàlla waxee waaw fa ma yaamal mitqaala darratin xayran yara wa in وإن تنفل أبو نافلة بست ركعات جيرون بين ركعة فحسن بطي لول لن سوبلا وتنفل نافلة نقبان المغرب تدقن تتمس والعشاء أجي مرغب لن يقمم لفيه جمع دقن تتمس أجي نجي نافلة مم لول مم أم ترغيب أم البن أم دايت لول نكون في ليم لو تمانا دفعام يرون تنبي صلى الله عليه وسلم دفتا نياه لول ما يقمم له عليكم بالصلاة بين العشاءين فانها تذهب من ملاغات النهار وتذهب اخره آه، لول يندم سادو نتي نياخي نياخي غوري من والعشاء والتنفل بين المغرب تي ديغنت تيمس والعشاء جي مرغب لن خمم لول في تيوم واما غير ذلك دا لول لول نك من شانها مانام لول لول مو واخ تي لي جيتو وون تي اي ملوكان من شانها تي مبرم فقال كما تقدمكم نم جيتو مانام لول يي مو واخ mu ne comme li ñu wax ci timis ak yooyu fa xamaa fa xamaa taqaddama comme nam jiitoo zikro ak tuddam fii xeyria ci moom ci ay julli kon soxlawul ñuy baamuwaat da ca delluwaat moom lay wax ne wa amma xeyru zalika ndaa lu dul yii mu wax min chenia ci mbiri timis maanaam lim la leeralal yi nga xam ne yeneen yi mu yëpp lu jëm ci wàllu mbiri timis comme yi mu ko waxoon toogaay yaag taay yaag yooyu leeral na ko soxlawul mu ciy ñëwaat fa kama taqaddama comme nañ ko jàng nam jiitoo woon rek zikro ak tuddam fii xeyria ci lu dul timis comme nañ ko waxoon ci tisibaar ak takkusaan ak suba واما العشاء ودال جي الاخيره تو جي اجي مجو آه، العشاء والاخير فان مو مجو تي الاخيره تو امنا نديف الاخيره تو نديف الاخيره تو وي موم العتمه تو موي جوليك مرا العشاء موي مرا هر آه، بوب نونو مو دانيو تودي صلاه العشاء جوليك مرا هر رير آه، صلاه العتمه عتمه موي مرا mune wasmul wasmul aisha turu aisha nak nga tude ko aisha akhas mo gëna jago biha moo gën a yey biha ci moom wa awla moo gën a nga tuddee ko al asha moo gën a yey nga tuddee ko al atama waaye al asha moy al atama rek mooy marax fay jaru dana biral fiha ci moom fay dana biral fil uula yey ni ca ñaari rakaa yi njëkk yi gee bi umil qur'aani ci fatiha wa suratin ak fi kulli rakaatin ci bépp rakaa wa qiraatuha jàngam nag moom gee at walu moo gën a lu néew min qiraati al asri ci jàngi tàkkusaan gee mooy gën a gudd jàngi tàkkusaan kon da ngay gis ne suba moo gën a gudd tisbaar topp ci gee topp ci timis ak euh, tàkkusaan topp ci fi fil axiratayni wa qiraatuha jàngi gee atoolu moo gën a gudd xalilan law min qiraatil asri ci jàngi tàkkusaan mm-hmm. wa fil axiratayni ci ñaar rakaa yu mujje nag bi ummil quraani ci fatiha fi kulli rakaatin ci bépp rakaa sirran ci yalu nag su ma yafaalu topp mu def fii saairia ci mbooleem julli gée gi kama taqaddama wala fii saairia ci li des lépp waaw mbooleem li des ci julli gée gi a saayir mooy li des rek waaw fii ci mbooleem li des kama taqaddama comme nam jiite woon minel wasfi ca mellal ko comme niñ mellal woon yeneen julli yi ñoo bokk ñoom ñëpp kon soxlawul ñu ciy jaaraat wa yukrahu def na sib nag an naw mu nelaw xablaa njëkk gee mu ne sib nañ nit ki di nelaw njëkk gee ngir ragal mu nelaw bàyyi gée ndax diggante timis sa gée boo fa nelawee mën nga parce que foofu noonu boo xasee nelaw rek ñaareel <laughs> léeg mu dal ñu bëree bëri sama classe bu la ci nelaw xawee jàpp rek léeg boo sàgganul boo sàgganee tuuti rek gée gi mën na laa rëcc moo tax ñu sib ku fay nelaw wal xadiisu ak waxtaan baadaha gannaaw gée li xayri daruratin ci lu duut aw lor maanaam darura mooy loo xam ne ni maanaam aajo la maanaam darura sax xaw naa wuteeg aajo am na lu ñu tuddee aajo am na ñu tuddee darura nga xam ne ñàkk la waaw darura mooy loo xam ne aw lor la nga xam ne mënta ñàkk kon foofu sib nañ nit ki continuer nekk fa di waxtaan waaw ngir lan waxtaan kooku muy waxtaan mën na koo xañ mu bañ a mën a yeewu fajar ndaxte nit ki nu mu gën a teelaw tëddee rek da koy dimbali nelaw ay nelawam doy bu waree liggéeyee bu waree nangam wal qiraatu jàng allati ya nga xam ne yu sirru dana yaru biyaa ci moom fi salaati julli kullaa lépp hiya moom bi taxriki lisaani nekk na ci yëngal làmmiñ bi takallumi ci wax bil quraan ci alquran kon bu ñu waxee yalu yalu la lay biral ne yi ñu wax ne da ngay jàng ay jàng yalu mu ne loolu mooy da ngay jàng ci sa làmmiñ nga xam ne yow ci sa bopp da nga gis sa làmmiñ wi di yëngatu waaw donte sax yow sa jëmmi bopp doo dégg waaye leer na la sa làmmiñ bi mu ngi wax bismillahi rahmaani rahim waaw loolu mooy li gën a néew bu la neexee te mën nga koo déggal sa bopp gi yow sa yalu gi yow mën nga koo dégg mm. wala sax yow doo ko dégg mm. léegi nag li ñuy bañ mooy ñi ne la yalu rek nga koy jàng ci sa xol nga xam ne yow fatiha gi yaa ngi koy jàng ci sa biir xol waaye sa làmmiñ tudd ko waaw moom lay wax naan waxturisa bi tahriki lisaani an an yaqra bi qalbihi fi salaati fa innaha la tujizuhu waaw loolu la ñuy ragal mooy foo nga tudd kon ci sa làmmiñ mu ne wa am mu ne bi tahriki lisaani ci yëngal làmmiñ bi takallumi ci wax bil quraan ci alquran wa amal jëru ndaal biral nag biral moom mooy lan mu ne fa an yusmia mooy mu déggal nafsahu boppam waman yalihi ak ko ko méng bu fekkee yow kese yaa koy dégg loolu kenn du ko tuddee yalu in kaana dem nekk na waxdahu moom dong waaw wal maratu jigéen duna rajuli yées na góor mooy walis na góor fil jëhri ci biral mooy moom du biral way ya moom fi ayati salaati ci melokaanu julli misluhu comme moom la mel manaam ci ni ñuy jullee maanaam ni góor war a def ci julli yëpp jigéen noonu la war a def waaye nag moom du biral مثل كم غور لمال غير أن دلول نك موم كو جيجين كي نك تنضم دا فاي تاب ولا تفرج دو يرل فخذها نياري لوبم ولا عرضها دنيا غين نياري ماغام نياري بيرغام وتكون داي نيك منضمتان دي ادي تابيو منزويتان دي ادي نغبو منزويتان دي ادي نغبو موي داجال يرامم في جلوسها سي توغايم وسجودها اك سجوتم وامرها اك ميرم كلي ليبم ليب ميرم xam nga dañ laa waxaloon ne góor buy julli dafa war a yëreel waxoon na maanaam mu bañ a jël ay mbaggam taf ko ci loxo yaramam waaye dafa ubbi war a ubbi ay mbaggam yaa ngi dégg ci rokon bi ak ci sujjóot mu ne nag jigéen moom safaanab góor moom ay cëram daf ko war a tàpp warut ubbi ay cëram mu ne summa yusalli topp mu julli ashafaa ba mu waxee julli euh, kii ba pare gée ba pare nag mu ne summa yusalli topp mu julli ashafaa shafaa mu nekk luñ sopp wal witre ak witre jëxëran ci biral witre boobu nag moom nekk sunna bu fadew kon shafa ak witre dañ koy wax waaye witre bi mooy sunna bu fadew bi shafa moom buñ ko waxee rek liñ ci jublu mooy loo mën a julli waaye nekkul rek ñaar raakaay ñu bëri dañoo yaakaar ne ñetti raakaay mooy tudd shafa ak witre alors que shafa boobu noonu mun na mun na mun na nekk ay yeneen i julli yu xaw bëri maanaam witre laa ma ne mooy bu tóol bi mën na nekk benn bi mën na nekk sax am na ñu ko def ñetti raakaay maanaam sunna bu fadew waaw fadewu mooy lu feddaliku lu dëgër waaw wolof mooy wax fadewu mu akkat bu ñu waxee sunna mu akkat mooy sunna bu dëgër sunna bu fadewu mu ne eh, wa kadalika na ko noonu kon mu julli safa witar wal wal witar witar loolu daf koy def nag bil jahri ci biral ok mu ne wa kadalika comme noonu ba tey Euh, ci biral gi ci safaak witar noonu lay def ba tey yustahabu sopp nañ fi nawaafili léeli ci naafilaay guddi yi al ijhaaru biral wa fi ci naafilaay bëccëgi al israaru yalu bu dee naafilaay bëccëgi da ngay yalu bu dee naafilaay guddi yi da biral loolu mooy li nga xam ne sopp ci jàng yi waaw mu ne wa in xaalafa wa in jahara ndem biral na fi nahaari ci bëccëg mu wuteeg liñ ko waxoon fi tanaful ci naafilam fa zalika loolu waasi woon lu dagan boo ko defoon tamit kenn dara du a ci fekk mm. wa aqallu li gën a néew ci shafa mooy li ñu wax léegi rakaataani ñaari rakaa wa yustahabu sopp nañ an yaqra mu jàng fil ula ci rakaa njëkk ba bi ummil ci fatiha mooy shafa mu ne li ci gën a néew ñaari rakaa mm-hmm. léegi nag bu dee ñaari rakaa yooyu ngay def mm. moom la lay wax ne sopp nañ nga jàng ca ci rakaa bu njëkk ba boo jàngee fatiha ba pare sabbih isma rabbikal ala mm-hmm. sabbih isma rabbikal ala wa fi thaniyati ci rakaa bu ñaareel ba bi ummil quraan ci fatiha وقل يا أيها الكافرون أقول يا أيها الكافرون ويتشهد متعايا ويسلم مسلما ثم يصلي توب مجلي الوتر وتر ركعة بين ركعة يقرأ ودنا جانغ في آياتهم بأم القرآن كفاتها مدال دف وتر دف بين ركعة مجانغ في آياتهم بأم القرآن كفاتها أه وقل هو لا أحد أقول ولا أحد والمعوذتين والمعوذتين أجناري غير خمنتني نيوي مسلوات ولا مسلواي موي falaqi ak naas wa in zaada bu doolee min al ashfaa ca shafaaya jaala mu def axira dalika mu jóg loolu al witre witre bu fekkee ne nag dalaa wax ne ñaari rakka moo gën a tuuti ci shafa mu ne bu fekkee da nga caa bëgg a dolli def yeneen shafa mooy nga def six rakka wala huit wala dix ndaxte yonente bi saa dañuy wax ne moom li gën a bëri fukki rakka ak ñett daaw ko wees léegi nag mu ne bu fekkee ñaari rakka da nga cee bëgg a dolli na nga fexe daal ba julli gi mujj gi moom mu nekk witr ndax tey yonent bi saa dafa waxoon ne na ngeen def seen mujjëg julli ijaalu axira salaatakum bil leyli axira salaatikum bil leyli witra hmm. julli ki ngeen mujjee julli ci guddi gi na ngeen ko def witr bu la leeree ne da ngay jóg julli waat naafila waat kon bul witr hmm. julli naafila yi ngay naafila ba pare nga bàyyi witr ki comme ñi nga xam ne yàlla baax na ñi mën a jóg guddi hmm. ñu daal di koy mujjee ndaxte yéen da doxal laa witraani fi leyla euh, mu daal di ci teg mu ne wa in zaada bu doole mi neen ashoa ci shafaa jaala mu def axira dalika mu jóg loolu al witra witar muy tool wa kaana nekkoon na rasulullahi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli di julli mina leeli ci guddi isnatay ashrata fukki rakka ak ñaar isnatay ashrata fukki rakka fukk ak ñaar rakaatan ci rakka summa yuutiru topp mu witre bi waaxida dañ ci benn wa qiila am na ñu ne waxees na ashra rakaatan fukki rakka summa yuutiru topp mu witre bi waaxida dañ ci benn moo la ñu waxoon léegi ndaxte day def ñi ne fukk ak ñaar la mu def beneen muy ñett ñi ne fukk la mu def benn tëjee ko muy fukk ak benn wa afdalu wa afdalu leyli li gën ci guddi yi nag aaxiru mooy gudd mooy gudd mooy mujjam fil qiyaami ca taxaw mooy booy def qiyaam nga xam ne da ngay naafil maanaam li ñuy tuddee solusul leylil axir dafa rot ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne yanzilu rabbuna kulla laylatin maanaam yàlla bu ñu demee ba sulusu guddi gi gumujigi gudigi gi guddi buñ ko xaajee ñetti xaaj sulus bu mujj yanzilu rabbuna yàlla dafay ñëw ba ci asamaanu addunia yaqulu hal min mustaghfirin fa aghfira la muy wax ne am na kuy jéggalu ma jéggal la ak yeneen yi nga xam ne yëpp borom bi dafay nangu ñaan ci waxtu woowu mu ne kon liñ bëgg mooy nit ki waxtu woowu na fexe góorgóorlu ba aaxiru sulusul aaxiru sulusul mu ciy jóg moo tax xadis boobu day wax ne yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla laylatin ila alsamaai dunia حين يبقي ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له كن لولو ما يلينا خلوه نبرمي سبحانه وتعالى دي واحد مرحبا فمن أخر كيه تنفله أغنافلا ووتره أغوترم إلى آخره جنبجة مجد قدقة فذلك الأفضل مويلكا إلا من الغالب عليه لولو كو خامتيني الغالب اجي نوت لا عليك موم ان لا ينتبه ندو ييو فليقدم كون نجيتال موم ويترو ويترم ما ما ما عندك لا خانو يريد نم نكو من النوافل تي نافلي اول الليل تا نيل بين غوديغا ياي يعني دي مو نه كيغا خامتيني نك موم ا آه، داكو لير نكو موم دو مانا جوك واه اي ميرم داف كو نوت با دو مانا ييو كون بو لي گن موم موي مو نافله ba pare daal di witar moom lay wanan naan man lu dul koo xam ne illaa man lu dul koo xam ne alxaalibu aji not la alay ci moom maanaam wóor na ko ne moom ay mbiram ñoo ko not an laa yeen tabiya ne du yeewu wala njort ne du yeewu fal yu kon na jiital witra witra maamaa yuridu ànd ak la mu namm minan nawaafil ci ay naafila awal leeli ci njëlbeen a guddi gi summa insha topp nem soob na ko isa say bu yeewoo fi aaxir ci mujj a guddim tanaf fala mu naafila lu ko soob min haa tukkee ci moom mas naa mas naa ñaar ñaar waaw mu def ñaar defaat ñaar xam nga fii nii mooy ñiy wax ci alxuraan ñu wax ne yàlla dafay wax ne mën nga takk jabar yu bari yu ëpp ñeent dañuy wax ne mas naa mas naa mooy kar waaye fii rek loolu dafay firi ne mas naa jàngoon nañ sànq ne chef julli naafila ñaari rakkaa la léegi bu waxee mas naa mas naa mooy ngay def ñaar sëlmal defaat ñaar sëlmal waaw kon loolu la ci nam Euh, wala yooju du baamu nag al witra witar ga moom mm-hmm. mën ngaa def witar tëj ir mm-hmm. boo yeewaatee nga kii waaye witar ga moom doo ko def ndaxte laa witraani mm-hmm. fii laylatin waaw mu ne wa man xalabatu ku not na ko nag aynaahu ñaari bëtam an xisbihi ba walis dogam an xisbihi walis dog bi mu daan def moom faloo ñeel na ko an yusalli yow mu julli ko maa baynahu la nekk ca digganteem wa bayna tuluuci alfajri ak la nekk ci diggante xarub fajar euh, mu ne nag koo xam ne ni moom dafa nelaw ba dog bi mu daan def moom mu bàyyi ko mooy wird bi nga xam ne daana ko def maanaam dog boobu noonu alxisb maanaam al wird mm-hmm. li nga daan julli mm-hmm. léegi nag yow yeewu woo dem ba fenku fajar gi xar mm-hmm. loolu lay wax wa man xalabatu ku not na ko ay naaw ñaari bëtam an isbi walis dogam fa loo ñeel na ko an yusalli yow mu julli ko maa bay na wala nekk ci diggante guddi ga wa bay na tulu al fajri ak diggante خروب فجر وهو من قفاجل وأول الإسفار واو فوق صدق كو يوك دافكو عط فتي وبين طول الفجر واول الاسفار اك نيل بين اك سبغ مانا ما بين ولو نيك سي ديغنتيم وبين ديغنت غوديغا وبين طول الفجر اك ديغنت قرق فجر آه، واول الاسفار اك نيل بين موي بلا بد سيت ويتي فوفو نونو بولا ليرنا sa dog bi xaj na fi nga man fee julli euh, ñaar rakkaay suba ak ñaar rakkaay fajar foofu mën nga ko faa def loolu incha allah danañ jàng lu gën a leeral bu fekkee ne maanaam huit ak dog bi ak ñaar rakkaay fajar yi boobaa ban nga ci war a bàyyi ak ban nga ci war a yan nga ci war a julli waaw moo tax mu ne wa awalil histoire ak njëlbeen ak set bi boo xoolee sax fii mu ngi ko fi indi léegi boobaa waxtu wi lay xool moom lay wax ne wayu salli day julli asubha suba wala yaqdi te du fay al witra ba man ka nga xam ne zakarawu fàttaliku na fàttaliku na dog ba huit heures ba baada an salla gannaaw bu ñu jullee subha suba mu ne wala yu salli subha maanaam boo demee ba suba jot bu bët set te yow witroo woon mu ne bu boobaa da ngay julli suba bu fekkee nag da ngaa julli suba ba pare fàttaliku ne yow julli woo woon lii di witr mu ne doo ko fayat moom wa yu dana julli asubha suba wala yaqdi lu fay al dikra al witra witar witr ba baada an salla gannaaw ba mu julli suba suba léegi li ñu doon wax léegi mu ne wa galaba du aynaahu an xisbihi fa an yusalliyahu ma baynahu wa bayna tuluci alfajri wa awali lisfaar maanaam bu boobaa ci guddi gi noonu li nekk ci diggante xaruk fajar gi ak bët di set léegi foofu dañuy xool moom lay wax boo xoolee mu ne bu fekkee waxtu yi dafa xat atte mooy in lam yattasi illa rakaatayni bu fekkee ñaari rakaa rek moo xaj ci xaruk fajar ak bët ak bët di set mu ne bu boobaa fa innahu yatrukul witra boobaa day bàyyi witre gi wa yusalli subha mu julli suba gi alal mashhuri loolu mooy li gën a si wa yaqadu yi mu daal di fay al fajra fajar bi fajar moom mën nañ ko fay boobaa mën nga koo fay baada xalli nafli gannaaw bu naafi la daganee mooy bu ñëwee ba jant bi yëkkatiku ba pare wa init tasaa nag bu fekkee léegi yow sa dog bi daf laa rëccoon dañuy xool wa init tasaa bu fekkee yaatu na waxtu yi li salaatin ci ñetti rakka aw arbaain wala ñeenti rakka ba waa ñi ko salla day julli al witra witar wa subha ak suba bu fekk ñetti raakaama fa xaj wala ñeent ñu ne kon booba waa ñaari rek ngay julli witar ak suba wa yaqdi mu daal di al fajar fajar baada xilli nafli gannaaw bu naafila dagane léegi ñu xool bu fekkee ne juróomi raakaa léegi ñoo fa xaj te yow bàyyoon nga sa dog bi ak lépp léegi dañuy xool waxtu bu fekkee juróomi raakaa ñoo fa xaj wala juróom benn mu ne bu boobaa dañuy day julli shafaak witar ndaxte yow da ngaa nelawoon ba julli léegi ñu ne la kon bu fekkee juróomi raka xaj na fi wala juróom benn raka kon boo da ngay julli safa muy ñaar raka julli witar mu ñetti raka nga daal di julli suba mu nekk juróomi raka mu yóbbaale juróom benn rakka kon loolu mu ne bu fekkee nag waxtu wi moom lay wax ne Cheikh Khalil dafa wax ne wa in lam yettasil waxtu illa li rakaatin tarakahu laa li salaatin wali xamsin salla shafa walaw qaddam wali sabin zaadal fajra bu fekkee nag waxtu wi juróomi raka juróom-ñaari raka xaj na ci ba lu kon boobaa da ngay safa gu itam julli ñaar rakkaay fajar door a julli suba kon loolu mu ngi loolu mu ngi dépendre daal ci kam yaatuwaay waxtu bi rek waaw ah. mu ne wa man daxala ku dugg na almasjida jàkk ala wudu ci njàpp fala yajlis bu mu toog xatta yusalliya ba tamu jullee rakaateeni ñaari rakaa in kaana dem nek na waxtun waxtu woo xam ne yajuusu dana dagan fi ci moom ar rukuucu julli waaw fekkee da nga dugg rakaa fekk waxtu julli mu ne kon bu boobaa Euh, da ngaa war a da war a def li ñuy tuddee euh, tahiyatul masjid mm-hmm. xanaa kenn la ñuy wax ne moom dañ koy moytandikuloo koo xam ne day ñëw rek di jàll koo xam ne dafa jaar ñu ne ko moom bokku ci laa yustahabu tahiyata fi xàq yi jàkk ji rek noonu di jàll waaye koo xam ne dafa bëgg ñëw toog mu ne waman daxala ku dugg na almasjida jàkk walam yarkaa te julliwul alfajara fajar ajizahu doy na ko ñeel loolu maanaam waman daxala ku dugg na almasjida jàkk walam yarkaaw te julliwul alfajra rakka fajar li zalika aji sawo doy na ko kon li zalika ci loolu rakaatal fajri ñaari rakkaay fajar maanaam maanaam tahiyatul masjid lay wax ne bu fekkee da ngaa dugg ci jàkk ji fekk yow julliwoo ko woon ñaari rakkaay fajar mu ne tahiyatul masjid boobu noonu doy na la walis ngay defaat ñaari rakkaay ñaari rakkaay ñaari rakkaay fajar tahiyatul masjid bi daal da ko yóbbaale dama ne wanaam waman daxala koo xam ne daa dugg almasjida jàkka walam yarkaa te julliwul alfajra fajar maanaam ca bitti nag la ci nam julli woon ñaar ñaar raka xam nga mën ngaa julli ñaar raka fajar ba pare hmm. door a ñëw si jàkka ji hmm. kon waa boobu tam defal tayatul masjid hmm. waaye ba ngay ñëw julli woon ñaar raka fajar sa kër mu bu boobaa kon ajizaahu doy na ko maanaam waajooju li zalika ci loolu ñaar rakkaay tahiyatul masjid yi yóbbaale na ñaar rakkaay fajar yi rek jërul ngay julli ñaar rakkaay tahiyatul masjid di julliwaat yeneen ñaar rakkaay wa in rakkaa bu jullee alfajara fajar fi baytee ci këram summa ataa topp mu dikk almasjida jàkka ja fa wuutee ne fii ci moom fa qiila am na ñu ne yarkaw day julli wa qiila am na ñu ne laa yarkaw du julli léegi nag fii dafa julli këram moom ñaar rakkaay fajar ba pare léegi ba mu jullee ba pare nag ñëw ci masjid bi am na ñu ne bu waa dana julli ñaar rakkaay fajar am ñu ne du ko julli ndaxte dafa rot ci xadis ne ku dikkal jàkka bu mu toog lu lu mu julli am ñu ne du ko julli lu tax ndaxte laa salaata baada alfajiri illa rakaatay alfajiri ndaxte yonent bi daf ne gannaaw fajar julli amu fa lu ñaar rakkaay ñaari rakkaay fajar waaye da ngay gis ne sànq waxoon nañ ne bu fekkee ne waxtu wi yaatu na na jul nañ xool ni kem waxtu wi yaatoo rek loolu lay fayee safaa bi noonu lay jullee witir bi léegi comme witir ak safaa bi dañoo dëgër te jullik fajar mën nga koo fay moo tax ma ne la foofu da ngay dugal witir bi bu fekkee safaa xaj na ci nga dugal safaa bi fay li nga xam ne mooy ñaari rakkaay suba yi comme moom mën nañ koo fay te safaa ak witir bu weesoo mënatoo koo fay kon da ngay gis ne même boo ko jullee fee boo ñëwee ci jàkka ji da ngaa war a da ngaa war a da ngaa war a da ngaa war a li gën a dëgër mooy nga mooy nga julli tahiyatul masjid wala salaata déet julli naafilatan wala salaata naafila wala salaata déet julli naafilatan luy nekk naafila baada alfajari gannaaw fajar illa rakaat alfajari lu dul ñaar rakaa rakaat fajari ila tuluu shamsi jëm ba fenk jant bi maanaam foofu mu ne daganut jullik naafila gannaaw bu jant bi fenkee maanaam loolu dañ koo sib ba mu des ñaar fajar yi waaye nag ak wird ci ki nga xam ne daf ko fàtte woon maanaam koo xam dafa ab dogam maanaam fàtte woon ko muy shafa ak witr ak yu mel ni ay julli niw yu mel ni sujudu tilaawa yooyu moom mën nga koo def waaw yooyu mën nga koo def moo tax léegi-léegi li ñuy tuddee amun maxsuusun wala amun urida bil xaas mën nañ wax benn mbir mu général fekk am na exception benn texte buy ñëw di wane ne liikat kat bokku ci wala léegi-léegi texte boo xam ne dafa général waaye li lay wan ne la malgré texte bi dafa général dafa am lu ñuy tuddee ay qara'in ay mbir yu koy wër nga xam ne loolu moo lay wan ne lii la bokk ci masalan li yàlla di wax ne ci alquran da nga koy fekk yu bari yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala day wax ne maanaam alak nu mu tuddee ci alquran maanaam tibyaanan li kulli shay mu ne alquran dafa ñëw tibyaanan li kulli shay waaye loolu ba mu koy wax am la xam nga kulli shay lépp dugg na ci waaye du lépp la parce que am na ci wàllu médecine am na ci leen loo loolu nekku ci waaye kon loolu amun luy débil xaas maanaam loolu day wax ci mbiri diine maanaam alquran dafa ñëw leeral mbiri diine kon lépp lu aju ci diine loolu alquran loolu la ñuy tuddee amun kon fii tamit bu ñëwee ne naafila lu ñu koy def gannaaw fajar ba mu des ñaari rakkaay fajar waaye daf caa génnewaale lii nga xam ne mooy koo xam ne dafa fàtte woon julli safa ak witar wala mu yaa ngi ak yu mel noonu dafa fàtte woon julli safa ak kon bu baax kooku daf génn lu mel ni julli niw tamit nañ ko ci moo tax mu ne illa illa rakaat al fajri lu dul ñaar rakaat fajar ila tulu shamsi jëm ba fenku jant ba bunt bi jeex wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam